amani ala xool rek di nga gis loo xam ne mosoo ko gis diglu di nga diglu mos a dégg kon nag lu bët tege nopp dégg ko te lenn lépp doon loo xam ne mos ko am loolu ci Sëriñ Tuubaa lañ ko gisee fas yéene ànd ak moom ñun nañu xam ne am nañ loo xam ne tawfeex di ku bëgg bokk xam na moo leen dimbale yoone la ci moom nga war a jot ci ñu bàyyi ko la rek teew fi loolu ak yàgg dañ nekk fii ci suñu daara ci Jannatul Maxwa di nuyu bu baax bi ndax lépp ko nag ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm ñu ngi ñaane sëriñ bi defal leen tawfeex ba lépp lu ngeen mën na ko raw ànd ci mbégteem sëriñ bi suñu xol set na bu baax taxawaay yu rafet na dara man ko wut ñuy ñaanal suñu Muntaxa mi xam ne moo ngi jégalu sax ren ji mooy premier màggalam de xalifa général de Mouride nekk fi moo na ko nga xam ne moo jiite soxla yi ak sëriñ euh, Moussa Gueye mi ak sëñ Saliou Thioune safar ba laa commencé wax ni man xamoo kuy safar ren ji laa xam te kuy di ñëwee loolu la wax ñun Fat Diop ñi ñëpp loolu la ñu wax nga xam ne loolu kon yow yaa ko fa indi parce que daal ñun mosuñu te yow lii lépp yow la wax dëgg yàlla ñu bu baax a baax a baax yal nañ ko fekkee nag ay déwéni déwéni déwén ba li ñu yëpp ci yow lépp ñu mun parce que lii ñu nii sax dañu ko xeeb sax du dara ci jub dañ ko xeeb sax billaay mais so yàlla bàyyi ba daal ba déwén rek ci kàttanu yàlla jàpp ngeen am doole bu baax a baax parce que boo xoolee ñu wax dëgg ci yàlla sax ba sow ñoom ak daabo ñoom ñëpp dañoo sonn sonn ñoom ki ne ñëpp a ci ak ñoom ay jàmbaar lañ wax dëgg si yàlla xamul lu mu war a doxee bu fekkee ne ku tayal nga wala koo xam ne gëmul li muy def ba tey arrière nga waaye arrière oo benn yoon yal na ko yàlla ak yokk bu baax muy ku jàmbaare nag ci daal ko fekke lu ñu jàmbatu sax te yoruñu ko dafay koy génne buñ nee nii sax nañ def li mun a bàyyil ma génne sama poos def te loolu dëggu rek moo ko nag alaaji moo du sant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax moo jëmm ji teew bu baax a baax yàlla ak moom la ndax lu ci bëri sooxe woon na waaye moom ci boppam ak volonté bu mu am ci daayira bi ak gëm gu mu gëm daayira bi ak bëgguñu avancé bi mu def tax na poosam fekkewu ko dooleem fekkewu ko kero ba ñuy ñëw moos tontoo puy ak ñun moom ñun moom ñun ba 2 heures du matin bàyyi këram moom kese te loolu nit ku dëggu rek a ko mën ñu ngi koy ñaanal lu mu mën ren lu ko ëpp sant nañ ko bu baax a baax ko gërëm di kontaan bu xool ba mu yàgg ma ne ñii li ñuy def àll lañ koy defee da nga leen gis ñoom ñu songu liggéey bi démb ba léegi noppaleekuñ te bu ñu nekkoon ñu yaafus ba ñu egsi bët dem boole ko seen coono xëy ñu naa leen jóg leen mais xaarandi ko leen yëkkati ñoom ñëpp dañoo takku sonn ba bëgg a dee maa ngi ñaan coono bi ñu am ci màggal bi yal nañ xalaat seen tur yal nañ am lu kawe seen door man daal sant naa bu baax baax baax ñoom xaar ñoom noppaleekuñ yal na leen seen tubaab ñoo bañ a wax parce que julli gii ngir teewal ci kanam suñ kanam ni daal bu taxawee moom su doxee moom la dañ ko sampee ba léegi ko ñoom moom waaye bàyyi ñoom kanam te am du ko fekkee lépp loo xam ne dañ ko dañ ko ci dañ koy fekk mais moom moo sëñ Touba ñëw dëkk fii euh, waa waa yëpp fexe nu ne pour euh, yàlla moo moo ñu ko jox ak sa ak boor bu ne fexe nañ pour mu jóge ko waaye dafa ñëw maanaam pour mu tam ab boo xam ne parce que koo xam ne soxla may Mbàkke moo moom suuf soxla euh, doomu sëñ Touba tàmbalee waaye amul fi ñu ko sant mënuñ ko dañ koy ñaanal yàlla fan bu gudd bu baax a baax eh, xam ne cant gi rek moom mënuñoo toog di sant ñëpp soxna yi jàmbaar leen lool lool lool eh, góor ñi tamit kasaay eh, donc daal ñu gën a góor góorgóorlu rek xam ne maanaam li li mag ñi daan wax rek jëf jël la rek def sëñ Tuubaa moom loo ci def bul xeeb loo ci def bul yëg Euh, loo ci mënti def rek yow ci yow lay ñëw te euh, jëfu benn daanaka benn boo yéenee rek daanaka lépp mën na kon nag ci kaw loolu daal bi ah di baax a baax di gërëm di baax a baax daal loolu leen amoon daal liñ ciy dolli xëy na nag tey comme jëwriñ ah, il faut ma wax jëwriñ yi am ñëw waaye nag am na ñoo xamante ni ah dañoo am nekk ci yeneen yitte ñëw kon nag su ñu kon dama wax ci kàddu kàddu jëwriñ yi laa waxee aji modou manam li mënu ñoo wax ci tuddu manam lepp lo mënti gis da am lo xamne bop da cey am daay man gannaaw bi ci sax mom moy mom ñun kenn tatam la aji ko sam dara ma fay nak ku ah su neena ñu jël cadre ba paré tuddu koy sant bu baax di gërëm bu baax di ñaanal yàlla may ko wér ak wér eh, te lu mu mën a yàlla ko yàlla fulal bu baax a baax nekk tamit bàyyi ñoom lépp lépp daal dafa dañ koy bàyyi ci loxo ñoom ñaar ñëpp di ñaan màggal bu ñëw rek gën a neex barke yonent bi barke suñu saal ko ñaanal gudd fan moom suñu saam gudd fan ak bu baax ak yokkute ba mu yëg ko baax na lool suñu sëriñ bu baax la wàcc ba ànd ak ñun maasee ak ñun boo mënoon na ni mbàkke mbàkke laa bu ñëwee rek toog fee di toog di koy xaar di ko ziar waaye bala ñu ko ziar sax moom ñëw ziar si te loolu du suñu cër waaye moom noonu lay def ndax wàcce boppam daal ba maase moom ñoo koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ku mu bëgg a liggéey yoggee la liggéeyu maam bi yàlla na ko yegg ci barke yonent bi sallallahu alayhi ngi nii ay at yu dal mais mosu fi am dara lu ñu xari wax dëgg yàlla. شاكرا के bàyyi ak yàlla rek yàlla na sëñ moom lépp fàllu borom bés bi lépp sëriñ bu baax xale yàlla na la am taalibe ay jàmbaar la xale ay jàmbaar la kenn mënu leen fay ay jàmbaar la macha allah. yàlla ma ma ngeen dundee mbégte maanaam safar bi ak préparation yeeg togg yeeg daal xewal yeeg yooyu noonu. incha allah borom Touba barke barke màggal gi ci xam loolu amuñu xew amuñu dara benn xew la am màggal Sëñ maam ku fi toogoon di wax Sëñ Touba defal daanaka dootu mos a jóge ndax lépp sëriñ benn ko kon nag maanaam tey ba dégg am na solo lool xanaa kay di laaj nan ngeen koy maam doxalee maam di safar ak biir ak maanaam daara ji nan ngeen ba ah, nga waaj loolu jadi kreativitas kreativitas bunda air karena dulu sebelum bunda bunda karena bunda kan bunda belum belum belum dipegang dipegang kita tengah kawan tay mempunyai wah kita aku mau musim itu amun tu geram musim itu amun geram lip minum malam sambil bisa di bunda terus bunuh tu bunuh defay beneran ñaar ba ñett kon loolu lépp dañ koy jël dellawat ko dulu dulu xam du du du si dara borom bis bi mooy defar bisam mooy leen bisu daal mooy defar bisu daal dañuy ñëw accompagner rek dañuy accompagner rek. kon ñu kàddu maanaam laaj ci wàllum culturel maanaam xasida ak alxuraan yi maanaam naka ngeen koy doxalee bu ko defee ñu daal di yemale foofu kàddu yi allah. waaw ndeysaan euh, ci wàllum culturel ci wàllum culturel nag ñun fii ci daara bi dañuy jàng xasida ñu jàng alxuraan ndaxte boo seetloo mbooloo bi nga xam ñoo fi nekk mooy waa kuréel gi ñoom nooy noo nekk ci xidma gi ñoo nekk ci xasida sànq rek ci suba lañ fi jàng alxuraanul karim duru nañ fi ay xëj te bu guddee tamit incha allah ñun nooy fanaanee guddi gi ci jàngum xëj suñ tuwaay ñun daal daara yi mooy daara mu waay wu naafeq si loolu daal la ñuy jëf kon ñu ngi tëj foofu suñuy kàddu di ko yemal foofu ba benn yoon incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu. ginnaaw bi jaaree suñu kilifa yi fi ñooy jiital ci siyaar bi yooyu. sering Touba sering Mountakha Mbacké Bassirou da ko ñaanal sama borom yàggal ko fi te wéral ko balim yéene liggéeyal Serigne Touba yëpp suñu borom jàppandal ko ni ñu ko bëggee di ko ñaanal Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmu Fall balim yéene liggéeyal maam maam di Cheikh Ibrahima Fall suñu borom jàppandal ko ni mu ko bëggee barkat maam Cheikh Ibrahima Fall di siyaar suñu waajuru tedd bi fi nekk soxna benn Fall mu Seydina Aliou Fall Mbawar mu maam di waaju ci serigne sam mbacke ya. mom serigne cheikhna ke, ya. mom serigne sam dulla di waaju ci mom di suñu waaju ni ñepp tay nak nek ci bis bo xamne bisub sante yalla buah bis bo xamne serigne touba da ci am digal suñu borom du ko taxaw jox ñu ci ndigal ci bepp talibi ñu diko def diko taxawal fi tay fi digal serigne bi and ci suñu kilifa suñu serigne suñu mag suñu lepp serigne Sam Mbacke ci njital ci njitam ak ci taxaway wa daire mana mahibun nafiq nga xamne ay atay ñi ñu and ak mom nek sa tëngéej ay atay ñi ñu and ak mom nek tëngéej doon ñu jambaare jambaare ci war ndax bu ne Serigne Touba rek kenn ku nek ne sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lay firndeel ci léppam ndax sëriñ Touba nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moom la ko yàlla toppaloo kenn ku nekk xam na ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boo demee ci Alxuraan suñu borom da koo xamal ne ko topp royal sa diine maam Ibrahima kenn ku nekk daa kun kun la toppaloo kon nan xam ne ci sunna la ñuy dox Serigne Touba ci sunna ak ci farata rek lay dox ci ndigalal yàlla lay dox. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo sàkku Sëriñ Tuubaa moo sàkku yàlla ngir ma amal Sëriñ Tuubaa fii ci aaxiru samaan ji ñu toll ci jamono ju mujj ji ndax xamal na ne ban ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee ba toll ci sukuraat nee na ay xolam yëpp dafa da dafa dafa day day jooy ak ruuxam di jooy yàlla suñu borom yow Seydina Jibril daan ne ko xanaa daa bëgg a dellu ñu ñëw si àdduna xanaa daa bëggul ma rocc ak ruuxam mu ne ko ah nee na bëgg na ko de waaye dafa gis aaxiru samaan ni jaxasoo. ak aw ñoñam li xew te kenn ku ne xam na ne ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la xew rey nan ay sëtam rey ay mbokkam daa tasaara diine islaam loola naqari woon ko lool ndax yonent bi sal ndax yàlla suñu borom daan def ne bépp yonent bu musaana yónni da ko daan xamal lay xew ci aaxiru samaan ba mu nga xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mujjam ndax da ko yaay aaxiru nabi yi yonent yi yëpp yaa ci mujj xamal ko loolu mu naqari ko lool ci la dagaane yàlla suñu borom Serigne Touba bam dagaane Serigne Touba nag daal jël ci yàlla suñu borom daal jël ci jëmum sëq ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy wàcce àdduna mu tudd Ahmadou sant Mbàkke moom moo fi bàyyi njabootam si la noonu la Serigne Touba daal xool ka muy àndal ci àdduna daal di tànn nee na dem na dem na Ruqaa dem na Baytul Maqdis dem na fenn fu nekk ci pays yàlla yi ngir tànn góor yàlla gu mu àndal wala ca la fa gisee maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax Cheikh Ibrahima si Moussa Ka di wax na Cheikh Ibra Fall nee na mos ak njébbaloo bay wax na yalla mi ko mom mo nako bamb mo la mom ras ko jox say pexe ci la andek serigne mam Cheikh ibrahim Fall ñew ci aduna ngir liggeel fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam non la def nak ba am pak bi di Touba gina bi nga xamene ne amna pak bi di Touba nek fi ci dar Xuddoos fi nan beyt wala jaam yalla di jaam yalla ba gis natou bi nga xamne fi la wara teggu ba am ba am li naan xulóob juna di seen taaf longo lii te wajjar war bi mu soxla xol bu ko sopp rek dem na li ko li ko yàlla suñu borom defal ngir mu sàkk ko ba am ko fala ko kii fala ko si yàlla suñu borom xamal ne ko paaka bii di tuubaale dañ koo aar moo waral natt bii di la fi mën a fekk faa nga génne ko moom la fay fekk ba mu ko génnee nag daal di dem sanc Mbàkke Baari Jolof ca la ca la ko natt ba fekkee foofu mooy bis bi tey ji ñaan di safar nga xam ne bisu jaamu yàlla la sant yàlla ak jéggalu nga xamné lépp tawféex yépp ci bisbi bi tay bi la xewé bisbi tay bi ci lan amé bayit wo suñu borom bindu lako ko muy ñu la seen taaf la ngoo lii di jiwaat bu mu xol bu la sopp rek yow suñu dem aljana kon bis bo bis bi mom dong mo jara sant yalla bis bobu nak mo lañ ñew tayon di doon ko and ak mbokk talibi yépp ci Serigne Sam nga xamné daayira bu Naafi'u ñooy taxawal kër gi ay ati at nañu ñu ànd koog sëñ bi doon ñoo xam ne ñu seet seetlu loxo lan doon ñu amuk taalibe jàmbaar loolu comme tamit ni ko waa daayira Lagros ni koy defee waxtu bu nekk da ko dundalee foofu sa janatu tamit noonu lañ ko dundalee fii doon ñu am pës yëf sëñ bi sëñ bee liñ ci sant bu baax a baax soxna si tamit mi ngi lu seen taxawaay bu baax a baax ndax ay seen i cant ak ngërëm jiitu leen fi lu jiitu ngeen fii ñëw kon mi ngi leen sant bu baax di leen xamal ne yoon wi moom loolu la rek ndax sëriñ sëriñ bi day wax ne jamono ju nekk daa xaaj ci ñett muy ñu ko bindee muy jiim miim ak nuun jiim gi mooy jaamu yàlla miim gi mooy masla ak mbindee fi nuun gi mooy nopp ci loo xamut te loolu ci la yar ak njabootam ci ci la ci la ci la nekk ndax képp koo gis ci àdduna bàyyi fu lu gën ak deret te sëriñ Tuubaa xasida yi ñuy wax ñu dëgg la waaye waaye deret moo gën a foor ay xasida yi yëpp deret gën a foor te njaboot ak boppam gii moom la fi bàyyi ngir ñu topp seen ginnaaw te buñ toppee seen ginnaaw duñ ko rëcc képp koo xam ne da nga ne bu ma gisoon Serigne Touba danaa ko defal loo xam ne danaa bokk ca seexe wala danaa bokk ca ñi nga xam ne ñoo koy ŋàbbalee dàllam te gis surtout Serigne Touba ŋàbbaloo koy dàllam tarbiyoo ko loola nekku nekkul loo xam ne dëgg la sox dëgg la ci xool mal innamal ahmaalu bi niyaati moom la Alxuraan wax jépp jëf mi mi feeñ ci yéene te lépp nit lépp loo xam ne yéene ko te jëfewoo ko rek amul solo waaw ndax nee na boo yéenee sax te jëndoo xarum tabaski doo si créetu lool loolu daal moo am solo ñuy ñaan suñu borom dafa ñu tawfeex ndax Cheikh Ibra Fall day wax naan yoon wi moom roy ak romb la rek nit ñi nag doo toll foo xam ne dañuy roy rek waaye duñ romb ndax lépp loo xam ne du taali bi rek da nga war a romb lépp loo xam ne mooy ak taali bi rek nga sax ca te di ko def waaw ñi ngi sant bu baax di leen ñaanal suñ borom yàgg leen fi bu baax Mbàkke ñaan suñ borom yàgg leen fi bu baax bàyyi leen suñu kanam ñu yàgg koo teewe Eh, kenn ku rek ma xam ne ci waaru rek lépp lu leen ci digal la nga xam ne loolu la waaw ndax képp ku la jiitu ci néeg rek moom moo la war a moo la war a wax fa nga teg tank tànk asalaamaaleykum wa rahmatullah fuñ ko mun a sante ñu teew ñu teew itam bala nga ko mën nga mën koo gërëm ci biiri mbokkam lay neex ñun kat tey ñun ñi ñëpp kenn ku nekk ku nekk ñàgg ah, yàlla di ñu ko womat ba mu ñëw ci sunu sunub xamanté sax mën ah, na né rombanté rek nuyo jall won waaye lépp lu xé luy ñag wala mu bok ci ñàgg kenn ku ci gis sa morom kenn ku ci ni xamna sa këru morom légui sun and bi ñun ñëp dañ daan and di ñëw di magal si waaye kenn ku nekk ya ngay dem dal fenn bo gisé nak mu xawa lotu ni nit ñi ko lool ah, ah, manam daayira bi bu ko sojé légui mu ngi ci ñeenti wër ci ñetti wër lay toll waye ñepp am nañ yene ñewon tay teewal sëñ sam ndax defal nañu lo xamné kat jafe won nañu lool ndax julit bu julit tay mbokam li yonent mi naan man tamasaka bi sunnati khat aqabani wa man aqabani may sëñ sam tank yooyu rek la doxee ñaan mom rek lañ ko xamé té mom rek lay def ci ñun motax mënu ñu ko fay ñu fay sëñ sam ñu ngi koy gëreem di ko sant ñaan yalla tank li mu li mu mebe yal na ko yàlla yeggaleel ci kanamu maam Cheikh darajey Seydina Mohamed ñun mënuñu koo fay amuñu luñ ko fayee liñ mën daal lu dul teew ci mbokkam ni daal na ngeen ko na ñëpp ñaan rek yàlla defal ko lépp lu mu bëgg yàlla defal ko ci kàttanu njool màkk barki sëñ Touba mi nga xam ne moo ñu fi tax a ñëw ñun ñëpp boole nañu ñàgg aslem ñàgg yëpp boole na ko ndax luy boole yi nit moom lay def ndax ñun ñi nee naa la kenn xamu ci sa moroom wala dañuy rombante nuyoo mu taqale ñëpp def fa boo xam ne nii ñun ñëpp ñoo waroon a teew tey waye ñu ngi eh, nga ñu ngi eh, toroxlu rek di ñaan ah mu ñaanal ñu ba heure bi dewe ñun rep ñu mën fe dok bokku dajé waaw waaw waaw ñu ngi sant ñëpp di ñaan yal na ko yàlla waajur bu jigen fete ñu naan ko soxna suñu Ali Fall Mbor moom am Cheikh Fall moom moo féete ci kër gi nga xam sama dara la Euh, ñu ñëwoon nag ci bisu màggal gi doon ko siyaar si euh, yaasal sunu ak taalibe ak sunu jaayante ci jëmmam ji nga xam ne yàlla ñu ko boole moo ñu boole moom euh, yàlla doon li toog feek jëwriñ yi nga xam ne ñoo ngànk daayira yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Tëngéej ak Lagrosse loolu ak cant la ñuy leen di siyaare bu baax eh, di leen di sant ndax fii moom wax dëgg yàlla li ma wax démb rek laay waxaat daanaka dara dara dara lu ma fi defati amatu daanaka lépp yéen a koy def lépp kon nag la nga xam dañ ko waroon a daj ci coono ngeen tudd ñu ko te jëmmi suñ Tuubaa tax yàlla na leen ko yàlla daal di fay te yokkal leen ko ndax gis nañ màggal gi seen i taxawaay macha allah dara manqué wut ay naga rëbb yeeg lépp lu war yéen a ngi koy jënd di koy indi fii di ma koy jébbal ñu koy bokk di def ci bis bi kon seen taxawaay boobu Sëriñ Tuubaa mi tax ngeen koy jëf moom gis na ko te yàlla leen ko fay ñu sant waa daayira Mawahibou Nafih di leen sant di leen siyaare di sant waa daayira Touba La Grosse Asalem ñoom ñëpp wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na kon nag yàlla saa borom yokk leen te defal leen ndimbal di siyaare suñu uh, rakk gi ñu fekk muy suñu Mouhamadou Fadal ak kër gi yépp ndax uh, buñ waxé buñ tuddé soxna ci rek mel na né wax nañ ñëpp waye nak uh, ñom dañuy ñan ci sama jëm fuñ nekk rek lepp lo xam waro na ko koo rek man nañ ko matali sëkk mo ra daanaka liggéey bi fi ak lepp lu ñu wara a rek mom sëñ Fall moko mom mom lañ ko teg ci loxom pour mu ñu koy taxawul te kon ñu ngi koy ñaanal borom woyofal liggéey boobu ci kawam ci barke sëñ Tuubaa ñuy siyaar jëwriñ yi fi teew yëpp di sant ñëpp tey ñaan saa borom boole ñu dimbale te fekk ko at barke Xol Xadim ngeen jëf wa rahmatullah jël bi ko nit ban ci la bi ni du nit ahmadu borom jaam ñi bamba seexul xadim mbakke borom tukki bu sori bi ci sërice baawaan bi sëñ bamba sëñ bamba mbakke tukkeem bu sori bi te metti lool ah. te yàgg lool moo waral màggal gi waral jumaa ji waral xëlëf xëlëf ji nu mel ci baayu Serigne Saali wooy borom gabon Serigne Bamba mujje woote ëppi dongo gën a gëmle gën a siiwle lambi diine xaadima man bamba doomi maam jaar ay sëriñ tuuba sunu waaji ñi ko bëggoon a ah, seexal ne leen sëñ bamba ñi ko bañoon a ah, jéggal ne leen ñaxat di woon neexal na leen kenn du doomi maam jaar ay Sëriñ Tuubaa sunu waaji soo daani noo ngi lay way ay Mbakke te naari nee nanu maalum man bu ma sañoon damay mën a ku dul baayu Seex Abdulaat Mbàkke sab signature fa Ndar baayu Seex Abdulaat borom belel Mbàkke ah baay laat baayu Seex Abdulaat baayu siideeg seexuna ak amsa toog Mustafa ak Murtala ak Moodu Maamun baayu soxna may laat borom beleel Mbàkke sëñ Bamba Mbàkke la mu tontu biro ba fandar moom rek moom rek moom rek moo ko yóbbu maa yomba gaañe wet di ñoom la nu bàyyi fii ñu toog ñu yóbbu doomi maam jaar ay Serigne Touba. Mbacke fi mu dem ba am li mu am. moom rek. ku fa dem di nga am li mu am. ci lu wér. xaw ma ku am fitu dem. foofee kenn du doomi maam Jaar. ay Serigne Touba. Mbacke sunu waa ji. Mbacke gouverneur. maru daf lu tax ñu naan la grand marabout te magoo ci sëriñ si sëñ Bamba ni ko lu tax ñu naan la gouverneur nga te doonoo ko yey na ko gouverneur daal ni ko Moodu Mbàkke Moodu Mbàkke man dama am saas sëñ Bamba ni ko man dama yore xaas yey na ko gouverneur daal ni ko Moodu Mbàkke soo ma xamoon ding ma moyu Sëñ Bamba ni ko soo demee ba xam ma ding ma moyu yey na ko gouverneur daal ni ko Moodu Mbàkke réew mi ku fi masa jaar di woote diine maa la gàllankoor suñ bamba ni ko soo njëkke woon ci man doo laal keneen mboolem ñi fi ma sa jaar maa ci gën di pànk bay du sóoru maa su mbaayam sakkantuma ko wara a maaseeg maamam gouverneur daani ko Moodu Mbàkke réew mi ku fi ñàkk baat maa la ko xañ suñ bamba ni ko su ëllëgee ku fi am baat maa la koy may ahmadu borom jaami sëriñ bamba seexul xadim mbakke sëriñ bamba yaay jenn waay xujja kon ñu ngi daal di jotali soxna xujja mu jotali kàddu waa daayira bi yi nga xamante moom mooy seen jaar ci sëñ bi naa bu leen màggale bu ñu màggale bu ñu ñëwee nii gisee lii dañ xam ne ñu defal njàng ñun toujours dama koy wax yoonu Serigne Touba dañ ci nekkoon mais dañ ci gën a bi ñu ko gisee même sama sëriñ sax da koy wax parce bi mu ñëwee lépp la dooleewaat te day jël alalam sax di ko def ci suñu bu ñu amee daayira day jël alalam di ko ci def te mënoon na ne dama leen jiite yoon bi rek mais sama dërëm du ci dem parce que moom soxlawu ci dara de soxla ci ñun ñaar dërëm moom mooy jël alalam di ko def ci ñun te bu yoon demal leen seen bopp ñu koy sant nag di ko gërëm ñu màggal gi ñu yëpp moom moo ko def ñun tuuti lañ def mais liñ fi xam nga ne mos màggal gi mais lépp lañ dafa ay dafa génnee tax fii dem liñ yooyu yëpp génne ko ñu kontaan na nga bëgg a dee même papa bi soxna naa ko ñu ngi leen sant nag di la gërëm ak ñun ci màggal gi ñu ngi leen di sant di leen gërëm te bu dewee déwénee bu soobee yàlla dañuy fekk kaw ak ci suuf yëpp fees dell ak nit yàlla nga eggali sa kër gi nag ci kàttanu yàlla ñu ngi lay ñaanal nag yal nga fi yàgg lool te wér ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax ñu moom amuñu sa pay moom amuñu sa pay moom wax dëgg si yàlla xanaa dañuy jéem rek mais amuñu sa pay moom wasalaam maa si soxna Fadio moom mi nga xamante ne si moom Touba Lac Rose moom tam mu daal di am ay kàddu yu mu si teewoon soxna yaar di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la jox sa wàccuwaay di ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi lool te nga ànd ak wér te yokk barke bi bu baax a baax a baax ndax ñun waa daayira Touba HLM ñàgg dañoo kontaan dañoo kontaan lool ndax su fekkoonte ne bii ne dafa nanguwut a dugal loxom si daayra bi li mu yor mu di ko téye kon mën nga ko laaj mais li mu yor lay jël di ko jox di ñoom trésorière bi mooy laaj Mamadou Pouy di sant Issa fay bu baax a baax a baax ñoo ànd màggal gi ba mu jeex di sant Serigne Saliou Gueye ñoo ànd màggal gi ba mu jeex Serigne Saliou Sène ñoo ànd màggal gi ba mu jeex monsieur gay ñoo ànd màggal gi ba mu jeex ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen la yokk leen bu baax a baax a baax ba lu ñu man ren bu ne ñu man lu ko ëpp te ñëw jëfe ko ci kanam sëñ bi te daayira bi yal na ci yàlla def barke ba fi ko bëgg a eggale eggale ko fi ak Seynabou maa ngi lay sant maa ngi sant ma doom yu baax yooyu wax dëgg tey dañoo ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë dwa ñoo defar monsieur bu baax ak nday mbay mi ah nday xadi gay yéen lene ñu ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg yàlla su damay na nen mi wax dëgg yàlla ku am pësleet la ci daayira bi ku ci la du tànqam lu dara lu ñu jog rek ma nga ca wa ah, <laughs> waaw defar mbuus ak yëpp Pa Amadou gay sëñ Mbacke ak euh, Baye Mor ñi ngi leen di sante bu baax baax di sante nak talibé yi ñu bokkal kër gi ndax talibé yi ñu bokkal kër gi ñu jóge Tëngéej dëgg yàlla mënuñu leen fay yalla na leen fay te yalla na bi ñaan ba li ngeen indi ren ngeen indi déwén lu ko ëpp li ngeen man ren ngeen man ngeen jëf ñi ma xamul seeni i tur bokk ci daayira bi yëpp gërëm naa leen ndax kontaante te mënul paase ñu ñëw rek ànd ak ñun bokk ndey bokk baay ñu dugg si fii wax dëgg yàlla loolu loolu ah dañ ci santaat bu baax di ci sant yoonu murit nag ak sëriñ Touba mi ñu ko defal ndax sëriñ Touba daf ñu may ñun murit lu ñu am dañ koy bokk ñun ñëpp xamuñu beddeeku lu loo am sa morom amu ko da ko koy jox sax toog maa ngi ñaan loolu yal na ko yàlla yàggal ci xel yàggal ko ci xol yi jërë ngeen jëf maa ngi jéggalu bu baax nag. taala wa barakatuhu ñuy nuyu mbokk taalibe yi fi teew yépp nuyoo bi nag ñu ngi ci jiital suñu sang suñu sëriñ cheikh mouhamadou muntaqa moom cheikh mouhamadou al bachir di xalifa général de murit ren ji di premier màggal boo xam ne si moom la fi màggala sëñ Tuuba ci jotaayam ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér naka noonu ñu ngi koy ñaanal sëriñ Cheikh Jëmbu Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall moom it yàlla suñ borom yàggal ko fi te wéral ko naka noonu it ñu koy ñaanal sunu xalifa maam sëriñ Sam Mbacké Ndulo ñu naan ko sëriñ Mouhamadou Fadal ak sëriñ Cheikhouna rakkam mi nga xam ne mooy suñu buntu ci sëriñ Touba. ñu leen di siyaare bu baax di ñaanal taalibe sëñ touba ak mouride yi ñëpp li di allah suñ borom boole ñu dimbali te yàggal ñu ah sëñ Moussa ñu ngi sant bu baax ci tawfiix gi ñu yàlla defal bañ fekkewaat màggal gi ah, ndax fekke loo xam ne si du say pexe la ko defal du say moyen la ko defal maanaam nga xam ne ndimbalal yàlla rek moo la ko defal loolu sant yàlla rek kon moo ci war ndax am na ñu fi nekkoon daaw te nekkuñu fi ren am na ñu fi e, ñoo xam ne ci nekkoon nañ fi daaw ji te nekkuñu fi daaw kon nag bu la yàlla dimbalee nga fekk lépp rek alhamdulilahi rabbil alamin nga war a wax na ñuy sant yàlla ci tawféex googu mu ñu defal e, daanaka day mel ne li am solo wax ngeen ko waaye nag e, bis bi nga xam ne moom lañuy yàlla jagleel muy bisu Serigne Touba tamit ki nga xam ne ci dafa jógoon ngir liggéeyal yàlla ak yonent ba ba yàlla fay ko tawféex gi nga xam ne képp ku ñëw Touba tey xam nga ne Serigne Touba liggéeyal na yàlla waaye yàlla fay na ko kon loolu ñun murit yëpp sant yàlla la ñuy def. ndax bala yàlla jagleele kilifa gu mel ne Serigne Touba nga xam ne ñëpp bëggoon nañ ko réew mu ne mënoon na ko am yàlla jagleelu leen ñëw ba fii mu jox ñu ko kon ñun ñii di ay taalibeem nekk ci ginnaawam ñu ngi sant yàlla ci boole gi ñu boole ci seriñ Touba di sant yàlla ci màggal gi nga xam ne moom la woote woon daan ne bis waxtu wu jotee rek waaye mën a nekk na bàyyi lépp loo jàppoon ñu sant la ma ci yàlla li tàmbulee ci ginaar ba ci lu waaye am na ma ko ci defal. defena lola loola eh, nañ ko nañ yaakaar ne noonu la ko señ bëggee ndax bi bis bi ñëwé lañ njëkk def moy waccé nañ ay kamil jang alxuraan jang ay khashida def ay salatu ala nabi addiyal ko señ Tuuba defe ay bernet lañ ci man lepp def nañ ko andi def ko addi señ Tuuba ci bis bi ta defena ne la ci señ bi diglé kon nak loolu bu fekkee yalla dogal nañu def ko ànd ko mbokki talibi ñi di wa Touba Lagros ci njiitu soxna Khoudia gay eh, Tëngéej njiital sëñ Moussa ak Ngañ ak soxna eh, Fatou Diop ñom ñëpp ñu and jël seen doole ak seen man-man ak seen lepp dajale ko ak seen i bokki taalibe defal ko Serigne Touba ci bisam bi kon loolu alhamdulillah rabbil alamin rek lañu wax ñuy di sant bokki taalibe nga xam ne si dañoo nekk ca dëkk ba te yàlla dogal na jotuñoo ñëw muy ca Lagros ku mel ne sëñ Mamadou Pouy moom ñu ngi koy sant bu baax ci koy gërëm ndax wax dëgg yàlla jëmmam teewut waaye jëfam teew na te jëf la yàlla gis te jëf la yàlla y fay ndax yoon wi lépp jëfa ko àggale fii mu àggale waaye du ay waxi kese kon moom ñoo ngi koy sant ndax xale yi bi ñëwee ak waa daayira bi wax nañ ma lépp lu mu taxawee ci seen ñëw bi ñu ñëw Touba ak xat-xat yi ñu nekkoon ak seen postage xam ne jàppante nañu ak moom lépp leen jaayante ba ñu ñëw ngir jëmmi kon loolu sëñ Mamadou ñu ngi koy ñaanal sëñ Touba na ko defal taw ba mu koy gën a man naka noonu it ñu koy ñaanal ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom nekk ci ginnaawam te yàlla dogal defe naa dañoo génn sax si yàlla waxtu bi ñu ngi ñoo ñoom jotaay bi. Cheikh ak sëñ Saliou Guèye ak sëñ eh, Momadou sëñ Moussa nga xam ne ñooy magi daayira bi te ñëwoon àndandoo ak xale yi di mel ne sëñ Assane Daba moom ak Samba Sow ak xale yëpp nag ndax ku lim day juum eh, ñoom ñëpp ñu ànd ànd def taxawaay bu rafet ñëw fekk si fi njaboot gi nga xam ne ñoo bàyyi koo Tëngéej ak sëñ Ngañ eh, liggéey bi. liggéey si sëñ Touba ci màgg liggéey bu rafet taxawaay fi taxawaay boo xam ne solo ba képp fi ñëw sa xol sa yaakaar naa ne kenn mbir te loolu nag seeni taxawaay la kon nag ñu ngi leen di sant ci loolu ñu ngi leen ci gërëm ñu ngi ñaan suñu borom kàttanal leen ba lépp lu leen man ren ba jëf ko ci màggal gi rek bu déwénee ngeen jëf lu ko raw te lépp nag sëriñ bi nangul leen ginnaaw loolu it sant suñu soxna yi nga la ñu ñu ànd ak di liggéeyal yàlla te ka ca jiit soxna Khoudia Fall ñu ngi nii ci jotaay bi ak soxna maam say soxna euh, soxna Jee ak soxna Khady Mbacke ñoom ñëpp di waa kër Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall yàlla jagleel ma kon loolu maa ngi ci sant yàlla bu baax ndax nit am na lu ne te amul loolu ndax sa ëtt moom bu fa waa kër Sëriñ yi di yeewoo waa kër Cheikh yeewoo loolu nit am na lu ne te amu kon nag loolu ndimbalu Sëriñ Tuubaa ak ñaani waajur kon nag euh, nañ fexe fonk suñuy waajur te fexe di sàkku seeni ñaan man mi moom euh, xaj na suñuy suñu man-man ak suñu kattan ak suñu am-am kii la man waaye fexe nañ ba ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu meññ muy bàyyi di ndey kenn ku ne gërëm loolu it maa ngi koy digal képp koo xam ne ab taalibe bi nga tax a fas yéene ànd di jaamu yàlla na nga fexe ba laq sa gërëm yi waajur tax nga am li nga war a am lépp te man mii samay waajur gërëm nañ loolu sama xol sama xel dal na ci bu baax a baax bu ko defee leneen ngërëm luy ñëwaat rek danay yokk waaye du doonaat euh, lu ok na nga fexe ba li nga war a làq ko rek ndax alxuraan woo say naa insaan ak boole deexi la wax kon nag nañ gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax looloo tax ñu indi fi wa maa xalaxtul jinni wal insi illaa liya'budu doomu aadama yi jinni yàlla da leen a sàkk wàcce leen ci àddina ngir ñu di ko jaamu kon loolu na kenn ku ci ne xam ne àddina indiwuñu la fi ngir nga nekk ci sa bopp rek nañ jaamu yàlla bu baax a baax a baax fas yéenee sax ci njub sax ci taalibe te xam ne loolu mooy suñu njëriñ àddina mooy suñu àllaaxira maa ngi ciy soññ sama bopp ci soññ képp ku ma àndal di liggéeyal sëñ Tuubaa maa ngi yi nga xam ne si ñoo ak ña nga xam ne ñoo nekk sama kër gi ci Daaru Minam di daayira ma waayu bu naafi wax dëgg yàlla ñoom it seen taxawaay rafet na macha allah dara manqué wut daanaka màggal gi mën na ma ne léegi comme dunq ginaar ci bu njëkk nag maa daan def lépp fenn fu ci ne nag ya fa war ak xar yaak ginaar yaak lépp maa koy def waaye tey dem nañ ba taalibe yi ñooy def lépp lépp man léegi damay toog rek kon nag loolu ñu liggéey Sëñ Tuubaa ba Sëñ Tuubaa fay ñu ko ci yéen yéen it yàlla ngeen dund ba seeni njaboot di leen koy fay ci barke cheikhuna Seex Ahmadul Xadim kontaan nañ bu baax nag suñu xol seddu na guyu ñu ngi gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp sant ñëpp di ñaanal tuut tànk yi nga xam ne tamit ñoom it ñu ànd ak seeni waajur jóge ba dëkk ba ñoom ñëpp ñëw màggal si te di jàng di doon ay élève ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp saa borom defal leen tawfeex bañ dem ba doon ay borom yi barke waaw yàlla mën na lépp am na ko yàlla na ko def soxna ko leen sant bu baax ñu leen sant bu baax soxna noonu yëpp leen sant bu baax a baax di siyaar soxna soxna Fall moom soxna su ngañ moom day jàmbaar lool moom it ci waar moom bu màggal ci weeru coro daal di ñëw Euh, moom it am ci taxawaay boo xam ne si macha allah boo xam ne si képp koo xam ne yàgg nga xam nga loolu ci moom man moom it ñu ngi koy sant di sant njagam yi moom it di taalibi sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax di koy ñaanal sa borom defal ko tawfeex naka noonu ñu koy ñaanal soxna Bintu moom it ñu koy siyaare Mbàkke di koy sant bu baax moom it taxawaayam rafet na bi mu ñëwee yi yaatu na lool li mu andi lépp macha allah kon nag ki nga ko jëfal muy sëñ Tuubaa yàlla na la ko bu baax a baax a baax a baax.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 بسم الإله مفاسينتي ينا جري بواب مسيالتي وقلبك وتيجدنا جوي سخسي دي موتر بك بلالاي جوي وقلبك وتيجدنا جوي Seex Sidi Muxtaar Mbàkke Balla lay jooy jooy naa ko jooy xalifa rafoor Seex Sidi Muxtaar Mbàkke Balla Muxtaar kookaay suñu sëriñ moom rekk la mi xamuma keneen fa may jële teele neen man mi sama xol bi dafa tooy mënul ñàkk faw faw rek ma jooy li tax ma jóg taxaw jaxle loo ya ma lidil basi yamini ya lawatu yu fi zifa kulli su بكل غد يغتمي صلى على خير البشر باقي ديم للقسم بلال وصحب الدرر مع سلام يغتمي يا مريد وفرحا صل على من خلق والخلق فاق خلقا والخلق وتسلم قد كان توسدي في قاتل ولم يكن بالمفلس وزاد وسلم demee ba xam ma jig ma moyu yey na ko gouverneur daal ni ko lu nga Moodu Mbàkke réew mi ku fi masa jaar di woote diine maa la gàllankoor lu Bamba wax Sëñ Bamba ni ko soo njëkke woon ci man doo laal keneen mboolem ñi fi masa jaar maa ci gën di pànk bay du sóoru maa su mbaayam war a maaseeg maamam gouverneur daane ko Moodu Mbàkke réew mi ku fi ñàkk baat maa la ko xañ Sëñ Bamba ni ko su ëllëgee ku fi am baat maa la koy may Ahmadu borom jaami Seexul Xadim Sëriñ Bamba yaay jenn waay yaay jël waay Sëriñ Bamba yaay jël waay yaay genn waaye waxi leen yow yaay genn waaye rakki ma Mor Jaara Sëriñ Bamba Sëriñ Cerno Birahim Ndaamal Daarooy Awa Balla Mam Cerno Modou Awa Balla Mam Cerno baayu Seex Abdul baayu baayu Seex Abdey baayu baayu Seex Abdey bay si na Usmaan Nuuri ni maami Seex Moodu Kara borom daarooy yow yaay bismillaahi ma fas yéena juray ba faf marsiyaaleeti bismil ilaahi ma fas yéeneeti yéena juray ba faf marsiyaaleeti o qalbu kaawu tay jiidna jooy Seex Sidi Muxtaar Mbàkke Balla lay jooy o qalbu kaawu tey jii dinaa jooy Seex Sidi Muxtaar Mbàkke Balla laay jooy jooy naa ko jooy xalifa rafoor Seex Sidi Muxtaar Mbàkke Balla Muxtaar kookaay suñu sëriñ moom rekk laa miim xamuma keneen fa may jële teeleneen man mi sama xol bi dafa tooy mënul ñàkk faw faw rek ma jooy li tax ma jóg taxaw jaxle lool tey jooy ko mu daloon faw faw kon nga jooy bisub talaata lam ma xew ci réew mi ñëpp di daw yuuxu tanan luy mbir mi ñu naani yàlla yóbbu na seexu siidi muxtaar mbàkke ma ñu xamoon muy maadi seex siidi muxtaar mbàkke balaay saa nax nanu ni ba dem ci biiri suuf sa cey Mbàkke balla maa ko waarooti li Yàlla wa qulu nafsin zaa'iqatil mawti diinay lislaam ji jooy nanu diinay yawudi kasaaka nasraanu billaahi Mbàkke sa dem gi jaaxal nanu Ih fo ma jam naksong a boram kan nama, minal muslimi na muslima tinya pok joy, minal mumini na muming na tinya woi. wata simu, a lilai mo, iwakan jamian ian wala tu farra ko mo Inamal muminina, na iya digal. fa aslihu bayna axwaykum mooy ndigal daana wax naan bëggatuma dégg kenn ku naan murit yi lii xaadar mbaa tijaan diwaan naa nuy seen tandoo weer wi woorandoo wareendoo tay bennoo juleendoo Seex Sidi Muxtaar dem na faaw bàyyi ñu tay coy fo ma jam xamuma ko man dana jooy ca yàlla mbàkke balaay sa den na tey mboolem julit ñi dëkkee xaro ak a jooy Seex Sidi Muxtaar na nanu ni ba dem tey Bilai ñun suñu sanyon do dem tai sanal yu rëy fenalol Mbàkke rafet na lool fenalol yi Tuuba nga ko ba yokku ñaari soorool mu jëm ca kaw Mbàkke sa jëf ji rëy na rawatina Tuuba Mbàkke muxtaare na lool li yëpp yaa ko liggéey diiru juróom-ñaari at juróom-ñaari weer juróom-ñaari fan mu dal di mat juma juma juray ji fandakaaru kenn masta gis lu mel ne wax leen muxtaar yan waa ndakaaru tàbbi ngeen jinaani ci jumaa jumaa ji di masalikul jinaan yéen waa Ndakaaru tàbbi jinaani ci jumaa jumaa ji di masalikul jinaan Seex Sidi Muxtaar Mbakke jooy naa ko Jurum nyari at jurum nyari wer jurum nyari fan yaa juróom ñaareelu doomu Seexu ya jurum juróom lu xalifa ya sering bara jurum nyari sorol yu jam jurum nyari miliari masali kul jinan jurum nyari at yu teg juróom ñaari weer jurum nyari fan mom la fi defar lépp leer cay mbak nekke yoonu Makka wi danan la jooy alxaaji yee kaajaratu yi ñëpp a ngi jooy waa Sénégal jënan la Mbàkke bal waa bitim réew it coy nan la mbàkke balla wallaay mbàkke ñi ñëpp di sangeem di jooya jooy ba mel ne taal bu géey maa ngi waa lislaam ji te di la jaale seex muntaxa sarak ji seex muntaxa mbàkke seexu siidi ñaari jëmmu kenn yorol mi daadi ilaahi ilal muxtaari faqtaar wusrifan wasalli bi taslimin alayhi wasarrifan ilal muntaka awsi sururan wa qadiman wa minni taqabal qimmati wal tu'aziman nyari baydi dayna yemti nyar syekh muntaka mbakke syekh usidil muqtar syekh sidi muqtar sajaf jiyatuna lol fo manadam tia dunaya nasiona caya la la ilaka illallah muqammadun arsalawul ilaw taqawluna fi dayna yemti ma xam dinaa del si waat te a ñëw ci jëfam taxawlu naa fi doy naa yem ci li ma xam dinaa del si waat te jéema ñëw ci jëfam subhaana rabbika rabbi sud amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin